teewlu na ko ak ak suñu nopp ak suñu xel ak suñu xol mu ne dégg nañ ko bu baax a baax. mu ne di leen sant di leen gërëm ci yitte jure ji ngeen def. mu ne ci taxawaay bu rafet bi. mu ne mi ngi ci am mbégte bu baax. bu ci dolli ko yaakaar bu baax a baax. di ci gën a am xel mu dal bu baax a baax. mu ne alhamdulilahi rabbil alamina mu ne lépp loo xam ne daf koy wax ci biir saal mën na ko wax ci pénc mi. mu ne kon nag dafa bëgg a àgg yéen foo xam ne mosu fa àgg ak kenn. mu ne si seen diggante yéen ñaar. mu ne seen ci digganteem ak réew mi. mu ne moom bi mu tolloo ci ñaar fukki ak ñeent ak juróom. mu ne boobu la ko suñu borom xiir ci lu baax. mu ne la ko jiitu woon boobu. mu ne boobu jamono ji mi ngi toll ci bëgg sa réew. mu ne bëgg sa réew lañ daan wax. mu ne muy ndaw. mu ne bokk ci ñi bëgg a bëgg réewam. mu ne dox ci ay jéego. mu ne ci biir gëstu boobu mu doon gëstu. mu ne di gën a gëstu dëgg. di gën a gëstu lu baax. a mu ne di gën a gëstu suñu borom di gën a gëstu Sëriñ Tuubaa di gën a gësu diineem loolu nag moo tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo ko njëkk a song. bëgg réew moo ko njëkk a song. mu ne yitte jooju. moo ko jëlee foofu. ba mu mel ni moom talatul dara. mu ne lépp lu dul digganteem ak Serigne Touba. ak diggama boromam. mu ne loolu mooy li ko ëpp doole. Ah, mu ne waaye mi ngi sant yàlla bu baax. mu ne teew ko ànd ak sagoom. mu ne teew koo xam warteefam. mu ne kon la cee warteefam ci dunduk àdduna gi ak dunduk àllaaxira lu ci ne lépp lu mu ci mën dana ci def kéemtalaay kàttam mu ne loolu mooy li nekk ci moom mu ne kon mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. di leen gàttandu bu baax a baax. na ngeen xam ne. Serigne Touba. mu ne dara indiwu ko fi. lu dul defar diggante jaam ñi ak seen borom. lu dul wommat leen jëmale leen seen borom. talul dara moom. dundam gépp talu ci dara. ba ni mu ni mu jee borom. moo ne loolu luñ ci ñàkk ñàkk solo. liñ ci néew néew doole. mu ne foofu rek la ñuy taxaw. def ci suñ kéem kattan. maslaa bi nga xam ne maslaa bi nga xam ne. mu ne mooy digganteem ak réew mépp mu ne digganteem ak bokki réew mépp. Euh, maslaa ba ca war. mu ne ba ca war. responsabilité ba ca war. ak ba ca war. woyof ci man mu ne e na ci moom toll. danaa ko def sama kéem kattanam. mu ne dana ko def kéem kattanam. itam nag jëm ci defar. mu ne ba lépp loo xam ne jëm ci defar. mu ne lépp nag jëm ci defar. mu ne lépp jëm ci defar. jëm ci réew mi rek jëm ci réew mi rek. jëm ci waa réew mi rek. jëm ci njaboot gi. jëm ci njaboot gi. jëm ci yàlla. xeer ñu ñu ñu xeer leen ci réew mi. ñu di ko ñu bëgg ci lu baax di ci sonn di ci bëgg mu gën a defar bëgg mu gën a jëm kanam. ñooñu na ngay xam ne yéen yëpp. maa ngi ànd mu ne na ngeen xam ne. ñi nga mu ne foofu rek la nekk. mu ne talul dara. waaye nag responsable bi war mu ne waaye responsable bi war ci moom. li fi indi woon Serigne Touba. defar rek soowee jaam ñi. mu ne lim ci néew néew doole. lool rek ci la nekk. mu ne kon mi ngi leen di sant bu baax. xolam sedd na bu baax. ci jëf ju rëy jii. mu ne ndax mënu fee weesu. mu ne yitte ji mënu fee weesu. mu ne taxawaay mënu fee gën a rafet. mu ne mi ngi ciy sant suñu borom bu baax di sant bu baax di leen xam ne foofu rek la ne lu mu mën ci lépp luy njëriñoo réew mi dana ko def mu ne gannaaw loolu la. xiir leen ci ngeen jóg ci réew mi mu ne yéen ñi yàlla dogal xiir leen ngeen jóg ci réew mi luñ ci mën a ànd ak yéen luñ ci defar gi luñ ci mën dina ko def incha allah mi leen koy seeral yéen ñëpp bu gannaaw ba ko seeralee suñu borom di ko seeral sëñ Tuubaa foofu rek la fa seen a nekk jërë ngeen jëf bisimilah na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah